chaîne euh, suñu cher internautes yi nga xamante ni yéen a ñuy faral di suivre ci Dakar Actu mhm. à travers seen émission bi di l'entretien ñu koy faral di amal euh, maanaam ayu bés bu ne mhm. tey nag ñu am mbégte di dalal kenn ci ki nga xamante ni euh, ci ñi nga xamante ni am nañ parcours au niveau politique waaye également suñu ko suñu ko waxee kooku tamit dinañ mën a jàpp ni am na lu mu xam am na lu mu def aussi par rapport ak métier bi di journalisme Euh, koku euh, tay moom mooy euh, kii di secrétaire général du gouvernement du Sénégal. Mhm. nekkoon fi tamit jëwriñ juñu denk walu tiara caada waaye it yoroon na fi lata loolu li nga xamanteni ni moom la promotion de la bonne gouvernance sous le régime de Macky Sall donc tay dañuy am mbégte dalal ki nga xamanteni ni moom monsieur Abdou Latif Koulibaly monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu. alaykum Cheikh Sadibou alaykum Moussa. Mhm. alaykum internautes yi nga xamné ñoo leen ay seetaan. nga mhm. ñëw fii di waxtaan ak man sottante xalaat. jërëjëf monsieur le ministre comme ni ñu koy faral di amee chaque euh, semaine ci émission l'entretien dañ ci euh, ànd ak euh, kenn ci suñuy naataanga donc Moussa. Moussa Bey euh, bokk ci kër gi. bokk Dakar Actu, ñu ngi lay nuyu aussi. ñu ngi lay fay Cheikh Sadibou di nuyu it monsieur le ministre donc ci dalal bi ñu dalal ouverture bi nga xam ne may nañu ko waaye di nuyu mbokku internautes yi nga xam ne ñoo safoo Dakaractu yi di ñu seetaan un peu partout à travers le monde ba ci diaspora bi donc euh, di profito également ci weeru koor bi di jéggalu ñëpp tey baal ñëpp ak waaye te di wax ne rek niñ ko safoo def donc ni ñu ko expliqué léegi Sadibou euh, waxtaan la boo xam ne li mu tomb bëri na dinañ ci waxtaane politique dinañ ci waxtaane société dinañ ci waxtaane mbirum enseignement sax ak mm-hmm. lépp loo xam ne laale na rek ci doxinu réew mi mm-hmm. eh, dinañ ko fi teg ñu waxtaane ko gën a leeral askan bi rek jërëjëf jërëjëf Moussa donc euh, sunu mbokk internet yi defe naa euh, leer na euh, lenn rek la ñuy def muy tàmbali waxtaan bi ak ki nga xamante ni moom mooy ki ñu dalal tey di monsieur Abdou Latif Coulibaly monsieur le ministre balaa ñoo peut-être gën a xuus ci Euh, yenn sujet yoo xamante ni soxal na askan wi soxal na aussi doxalinu réew mi euh, tey dafa am tiis woo xamante ni euh, le monde politique xam na ko ak dese ki nga xamante ni moom moo di Idriss bi mu génn àdduna ci ay conditions yoo xamante ni xëy na peut-être ci cadre ay jàmmaar loola xëy na yoo xamante ni am na te aussi mu nekkoon koo xamante ni marqué na empreinte par rapport ak lii nga xamante ni moom moo di Euh, xeex euh, lii di rébellion euh, ci maanaam Afrique subsaharienne mu doonoon koo xam ne daal dem na figure bu bu bu ñu bëri ràññee tey bi nga yëgee génn ko àddunaam ci condition yu ni mel nan la def ci yow. ñu def ci man mooy doomu aadama saa yoo yëgee ne suñ borom jël na ko yëg-yëg ba ca njëkk mooy yëg yow tiis ak naqar mm-hmm. parce dee mooy li xam ne ñëpp ci bokk yëpp nga xam ne njiitam réew la bu génnee àddina dañ ko ràññee bu njiitam réew boobu itam wax dëgg yàlla ba mu jëlee pouvoir bi ba léegi ràññee nañ ko ci fànn yu bari ràññee nañ ko ci fànnu njàmbaar ràññee nañ ñu ko it ci taxaw ci réewam waaye ràññee nañ ko it ci bi leen loo xam ne lii euh, mënoon na ñàkk am waaye loolu képp koo xam ne kii jiite nga réew da nga am wëy da am xarab waaye li may jàpp daal mooy yal na ko suñu borom bi leewu teewu ko yërëm ko ndax nag moom mooy gën laa dund tey ab jullit kon boobu ñu ngi koy ñaanal ñaan yi nga xam ne jullit moom lay ñaanal moroomam dëddoo. selon taxawaay bi mu amoon. yal ko yàlla yërëm euh, amoon concrètement euh, lan la Afrique ah, perte. nañ ci parce que ràññee nañ ko tànn yi ñu génn na wax dëgg yàlla fépp foo xam ne réew yaa ngi fay jaamaar loo li ñuy wax conflit ak ak ñëw nañ ko Mali Nigéria ak Cameroun ak feneen ak feneen soldat bu ndaw woon jàmbaare seen lu sax beneen njàmbaaram moo ko indi ci pouvoir jaar jaaram comme soldat découragé na ak lu mu ci mënta waxee wax dëgg yàlla dem na fanweeri ak càdd ne yàlla man maa ngi jógoon Éthiopie bis bi nga xam ne lay bëgg jamena mu escale technique jamena maa ngi fàttaliku maa ngi àndoon ak kilifa bu jógoon jamena conférence benn bis jibril ngom moom mooy dégg mu ni daanaka ba mu ñëw dugg jamena lañ fa def escale technique taxawul fa lu yàgg ndax jamp jamp ba nga xam ne moom la am yoon la amoon pour mu dem daanaka dama wàcc Sénégal rek ci su bëgg dégg ne dugg mhm. fanweeri at fa def mën nañu wax ne Tchad bi mosul stable na mu stable woon waa ka am na ay incursion yu fa doon am ay ñuy xeex di dugg 2008. Mhm. ak yeneen i at. waaye fanweeri at yu toppalante yoo xam ne kenn rek moo nekk Tchad nekk fa président la république mhm. te xëy yu ràññee ak guerre bu métti amul fa néew na wax dëgg yàlla loolee kon lañ fa doon wax démocratie. bokk na ci ñi nga xam ne nag ñoo ko fa dugaloon. donc yaa ngi koy xëy naa mun naay sooxe waaye nag sooxe yi. Mhm. mu terewul la fa daan nekk. wax dëgg yàlla. Mhm. yaa ngi koy wax sànq ne ku liggéey la ku def jéego la ci wàllu xeex li nga xam ne mooy terrorisme mais boo xoolee Tchad ak position bi nga xam ne amee na ko ci centre Afrique donc euh, mu doon position bu stratégique est-ce que euh, génn ak àdduna kii day mënul yànqal également xeex bi nga xam ne sumboon nañ ko jëm ci wàllu terrorisme euh, ci Afrique. man nañ ci am xalaat bu ni dem bu ni bu ni mel noonu waaye nag comme sol yaa nga ko fi léegi mhm. nga am yaakaar ne la nga xam ne mooy la fa xew ba mu ñàkk ci bakkanam mhm. ñoom ci yàq yi ne xëy na yàlla na ko mhm. bu ko yemalee xëy na dana am saafara boo xam ne bii bu ñu ñuy waxtaane parce que dégg naa opposition bi ñëpp ñu ngay wax ci c'est le peuple pour ñu toog xoolaa réew mi parce que Tchad dafa yàgg ci loolu nag. rébellion contre rébellion yàgg na ko. d'accord. fàttaliku moom ba mu ñëw gouvernement la ko fekkoon. moom. dafa nekkoon muy réew moo xam ne daanaka ba mu sosoo ba léegi mille neuf cent soixante ba léegi. maanaam la fa munti nekk yëpp mooy guerre civile.

mën naa am jafe-jafe. waaye nag loolu taxaw di dimbali yenn état yi nga xam ne terrorisme songoon na leen. loolu dinañ xam ne tàng yi de su ma tudd càdd ko man. amoon na it ay rapport il faut mu stabiliser ba phase bu baax. te taxawaat. soo ko mën a xalaat waaye ñu am yaakaar ne nag soldat yi ko ji di ko sa doom doom boppam ko wuutu. doom bi nga xam ne moom la bàyyi ba juróomi doon defal def. Kayak kan na oh, mhm. mhm. ya. moom dana ci wéy waaye nag loolu dañ ne dafay toogal toog toog toogin ni nga ni la intérim bi na ñuy wax nan fukki weer juróom-ñett ci kanam danañ organiser élection jox pouvoir bi si bi waaye daal diggante bi jaaxle mën na yàq sa xel dalu ci daal waaw jaaxle moom mënta ñàkk parce que mo moo ne président ba li ko faat muy rébellion mhm. euh, loolee bu na na bu amee itam néew na fu président bu dem ci front bi di xeex di ñàkk ci bakkanam jàmbaarte la waaye lu néew ci àdduna lu muy am wax dëgg yàlla waaw ñu ñaanal leen rek yàlla suturaal leen stabilité Tchad te xam nañ ne stabilité Tchad aussi stabilité yu bari foofu ci la ne wax dëgg yàlla Afrique soxlawul loolu daal stable démocratie moom lañ soxla waaye li yal na ci yàlla génnee rek defe naa. Mhm. Euh, point boobu war nañ ko mën a comme ça mhm. ñu mën a jàll ci leneen bon euh, c'était juste pour euh, xëy na waxtaan un peu par rapport ak. li ñuy euh, njort ni peut-être war na mën a ñëwi. Mhm. dina ci gis-gisam xëy na euh, jamono ji euh, doom ji mu ngi gérer intérim bi waaye nañu am yaakaar ni rek dina doon loo xamante ni dina ànd ak dal. Mhm. ànd ak sérénité. Mhm. ànd ak stabilité ci réew maak lépp lu ko wër. donc monsieur le ministre dañuy jàll ci beneen point jamono yi ñu weesu dañu nemmeeku yow universitaire nga woon d'ailleurs sax mën naa ni def nga fa amaana juróom-ñaari at maanaam. Euh, xam nga bu baax université espace bi tuuti rek voilà <laughs> donc euh, euh, mu amoon ay jafe-jafe yu ñu fa nemmeeku woon yoo xamante ni lu mu jur xëy na ñu bëri ñaawlu nañ ko ñu fàttali ni Moussa moom nekkoon na fi sax njiitu maanaam nekkoon na fi jëwriñ ju ñu dénkoon caada mhm. xëy na dina gën a mën a placer pour peut wax ci yiñ fa doon soulever muy mhm. wàllu waaso mhm. yoo xamante ni voilà donc ñu bëri ñu ngi ko doon soulever daal di ko wax te Sénégal je pense que xeyna warul mën soxla loolu monsieur le ministre. man nag ñaari wax la ci dégg deug yàlla bu ñëk ba dañ ñoon ñaari waasoon wasu ñu doon jamar fu foofu ginnaaw nga ñoom ñoo jamar jaamaarloo génne lolé dara amu ca lolé dara amu ca manam jamar boo bo xamné ay xale yo xamné ño fa nekkon ci seen biir way la ko sos nekkul mbiri waso ma ñaan yàlla nag loolu yi nga xam ne ñun loolu lañ génn wax ko muy la nga xam ne mooy li am parce que wax dëgg yàlla ñaari mbir yi mën nañ ko jàpp senegal jaamaloo ngir waaso ak jaamaloo ñun gëm-gëm bala diina looloo gisaguñ ko ci réew mi bu fi amit dañ koy laam-laamee waaye fësul waaye ñu ngi ko waxee woon nag dañ ko fësaloon waaye may am yaakaar ak yaqin bu rafet ne ñoom ñoo ñoo gën wax ne du mbiru waasu jote boo xam ne mën nay jote diggante ku ne loolu laa ci am yaakaar waaye bu dee loolu amul ndax waasoo ko lal ñu yàlla tey fa nga xam ne fa la jibee mu mu mu yem foofee. Hmm. mais université espace bi ko xam xam ni yàgg na yëngu. doon na espace boo xam ni voilà ñu bëri xam nañ ni euh, bu ñu waxee ay waxu amical ak yu ni mel sax ñu bëri dañ ci séentu ay maanaam euh, coloration politique ak maanaam dugg implication de certains hommes politique et cetera loolu yow euh, xëy na doonul peut-être hypothèse boo boo war a mën a réfuter. waaw xam na loolu du ma ko bañ man 1976 octobre laa yegg si université bi. daa fay ñeenti at. Mhm. gannaaw ba ma amee sama maîtrise droit defaat ñaari at dem jàngi journalisme. Mhm. yëngu-yëngu yàgg na fa toujours doole boobu daanaka 1968 bi léegi université Ndakaaru su dee yëngu-yëngu bokkuñ cosaan itam bokkuñ ñu naan sos waaye yëngu yàgg na fa ay yëngu bu ñu faral gis mooy yëngu boo xam ne étudiants yu génn di xarab gouvernement ah ci waxee man lañ danaa jox doy nañ defar seen dëkkuwaay nañ defar jàng jàngeekaay ba barab waaye nag mosul am yëngu xam ne dañu naan ñii ñooy diw sàngam ñii ñooy diw sàngam ñu ngay jaamarloo daanaka jaamarloo yi ci am yépp ci diggante gouvernement lay doon ak étudiants yi ñuy laaj gouvernement bi gouvernement bi dina woon ne lii mën naa koy def lii mënuma koy def nekkoon naa ca bokkoon naa ca xam naa ko bu baax itam waaye loolu saafara daf ci daan am bii it saafara amagum na ci waaye bu dee lañ doon wax ni moo ko sosa ko sos jaaxle woon nañ man am waaye nag man njortu ndafe li ma am mooy loolee la ko sos bokkul ak lay wax ne moo ko sos. gëmoo ni xam nga université su ngeen buggee dëgg-dëgg te nangu ko. mooy mosul am jaamaarloo politique boo xam ne bii dafa opposé étudiants yi nga xam ne seen biir la boo amul tam lu néew la man ba ma fay ne. débat la doon nekk ci diggante waa PS diggante waa PS ak opposition bi mhm. daan na opposé itam nga xam ne ñooy mois de gauche yi politique mënu ñàkk biir université waaye lii nga xam ne ñaari camp la opposé mhm. su solee ba ci biir mënta nekk politique la ma ko gisee mënuma say gis politique. ay ay ay ay politique yu am doole tamit monsieur le ministre waruñu mën a ñëw jël seen i euh, xam ni peut-être fii. Euh, gis nañ fi affaire amicale yi en 2008 dafa éclaté woon juróom fi ay coow yu bëri liste jaune liste rouge et cetera ku nekk di wax donc jàppoon ni politiciens yi aussi war nañ ci mën a euh, am euh, benn mainmise. xam nga sore noonu xam nga loolee boo ko seetloo. Mhm. wuute la fi daan am man maa ngi fàttaliku ñun bay fa nekkee 1937 la lay wax. Mhm. dafa amoon étudiant PS ñu xeex ak étudiants yi nga xam ne ci gouvernement bi lañ bokkuñ ci gouvernement bi dafa amoon ay étudiant RND. man ca laa bokkoon ñi nekk étudiant LD UNAPES GARMES ak yeneen mosul jóg université li ngay wax nii moo sos université daanaka. mais boo xoolee nga natt. ba ñuy wax union générale des étudiants du Sénégal. Uh-huh. ba ñuy wax US ba ñuy wax nangam. koo ci gisoon rek groupe boo ci gisoon rek am na ku làqu sa gannaaw. dëgg la yéen ñii sax bu ngeen bañee journaliste yi politiciens seen gannaaw. Uh-huh. tey tey boo ko am ak fu nit amee doole ñu yaakaar ne mën naay am doole ci politique rek làqu ci seen gannaaw jot politique loolu fi nañ ko fekk du tey. tey boo ko nattee ci euh, tolluwaay jamono jooju ak jamono ji euh, ñu dem ba ay polémique di am ci considération identitaire au niveau du temple du savoir yaa ngi koy wax sànq ne euh, débat d'idées la ñu xamee woon étudiants yi tey boo doon assimilé d'étudiants sénégalais tey ban gis-gis nga koy jox. gis-gisu jamono xam nga dañuy wax. tubaab day wax leen loo xam ne sa doom ji nga jur du sa doom doomu jamono la étudiant yi ci nekk rek la nga tombé ca loolu ngay dox la sa jamono tombé euh, yéen a ngi fàttaliku mille man leen ko fàttaliku mille neuf cent soixante onze ñaata étudiant la yóbbu woon armée la ma si xam boobu man mii sax ndaw la woon waaye nag mhm. ràññewoon naa étudiants ils gaucher yi ont l'université pourtant nous ñoom rek a gré nous Alioune Seynou Cissé la woon Croix, Ngor si Santone Sall Ablaye Bathily ñoom ñëpp ay hommes de gauche lañ là, ñoom lañ jàppoon yóbbu te yàlla nous ne la woon acteurs pas

en fi Ousmane Sousi Diop la ñu nekkoon. en fi bi 400 places la woon. ñu ngi génn di grève et 81 grève yu métti. 77 grève yu métti la lañ lañ doon laaj. dëkkuwaay doy ñun en fait bi nekkoon 5 heures du matin lañ daan yeewu. boo yeewu 5 heures du matin doo am sa couloir bi doo ci mun a toog waaye loolu nag mën leen ko xam parce que. moo tax ngeen ay waxee ni ngeen ay waxee. dañ ko def dañ ñu tabax beneen amphithéâtre mooy yan tabax ca biir université ba ca biir faculté de droit ñun ñoo fa njëkk a jàng loolu xam nga ne deux mille neuf mhm. ci gis ak fu muy tolloo ak nañ koy xeexee xam nga booba amul woon lu mot ñaari junne yi laal mooy fi ñuy fanaan mhm. boo demoon faculté de droit rek ñun mille cinq cent la ñoon première année mille cinq cent yi bu ñu laajoon ñu jox ñëpp ne juróomi téeméer ci ñoom des faculté de médecine ñëwagul faculté de de science ñëwagul faculté de lettres ñëwagul mooy lu ci nekk ak tolluwaayam juróom junni lal yooyu nga xam ne ñoo amoon diggante indépendance bi 2012 boobu université am na lu mot soixante dix mille étudiants ñoom nañ leen séddu mbala soixante mille étudiants ci université boo xam ne fukki junni ak fukki junni juróom lañ naa xam ne moo fa nekk juróom-ñetti junni nen loolu il faut moom xëccoo. mais regret bi nga am bi nga regret bi nga am bi nga euh, yëgee euh, jafe-jafe yi nga xamante ni aussi mu ngi am au sein de l' espace universitaire surtout bi ñuy wax waxu amical yi nga xamante ni xëy na peut-être dañuy jàpp ni euh, jàmmaarloo des fois yi ñuy am seen diggante day virer au pire. loolee dafa am coppali gu bu ci ñun daan nañ bokk amical ñu fi amical yawoon man naa lay génneel ñi may déglu xam nañ mhm. dañ daan def ay représentation culturelle ci day maa ngi fàttali grève mille neuf cent quatre-vingt quatre-vingt-un boobee Ibrahima moo fi nekkoon ministre de l'enseignement supérieur mhm. déggee revendication yi nga xam ne caractère pédagogique ñu naan boo amoon deux ci benn note dañ lay éliminer ñu kaas ni loolu war a turam maa ngi fàttaliku ñu ne assistant yi boobu ñu nañ leen titularisé maanaam assistant nekkatul woo xam ne situation précaire la waaye dañ lay titularisé yooyu booba la ko ñu doon xeex booba question pédagogique waaye ñu amical yi bindoo léegi nag lu doy waar la parce que bu ñu waay dem seen élection yooyu lu ne def ci am mm-hmm. maanaam kenn mënta wax ne violence amutoon mais ni ñu koy gisee nii ak léegi ni muy doxee wax dëgg yàlla jéggi na dayoo trop bokkul. gis nañ saisie bi ci ciy def sax gis nañ saisie saisie d'arme blanche. pour moom waaw. Mhm. lan moo waral loolu. xam nga yow mii tey Ndakaaru da daan génn rek ñu agressé la jam la paaka nangu sa portable. mbala mhm. ñu nangu sa saag bi nga gàddu amutoon il faut ñu jàpp ne doxi société bi mooy demee noonu. ndakaaru moom nañ ñun ba ñu jàngam daan nañ jógee Grand Dakar dox ba yegg suñ buntu université bi fu la neexal nga dem fenn rek lañ daan dégg ñu ne eh, boo fa demee wóorul dañ lay tafu kolobaan lii da ngay sa bagage di dox benn waaye da est-ce ba jege la nangu këf ko dem plus société di avancé ci nekk nit ñi ak dëkkuwaayu nit ñu jiggaani yeneen di indi télévision di jiggaani di indi ak seen sit yi plus nit ñi di xew fa nekk fen loolu dafay soppi jamono yu bari day soppi itam lu bari ci jikko yi il faut ñu xam ne du benn cause rek mooy indi problème bi évidemment assemblée générale yi boo koy déglu ci lu muy am nañ néeg ticket yi doy na xam nga sëñ Sari bu man ba ma ñëwee université su ma dëkkee danaa fay fukki dërëm li ma wax yàgg na de ëpp na fanweeri at ba jëm ñeent fukki at ba léegi ñu fay juróom-ñett si dërëm pour ndékki man ba ma defee université juróomi téeméer laa daan fay pour nekk ci néeg ba léegi daanaka loolu ñuy fay teew sa daal lii boo ko jëndaan jëndee ko junne juróomi junne mu topp laay jar tey yow lu mun a jàpp xel man na jàpp ñu ne la ma doon fay man 1970 wàññi nañ ci ñaari dërëm pour ñii tey di ko fay am na lu am de ñaari dërëm la ma daan fay am na ku koy fay la inflation bi indi teg ko ci am na ku koy fay kan la gouvernement koy fay état mënu def lépp lépp mënta yemb yëpp mënta teew yëpp mënta taxaw tey muy démb muy tey. mais dafa am lu xel mën a jàpp ak lu xel mën a jàpp parce que boo xoolee euh, problème bourse par exemple ba léegi ñoom ñu ngi koy dund ce matin rek maa ngi diir ci benn revue que ne ñu ngi kaas par rapport ak guichet yi au niveau euh, de de de des banques partenaires yi nga xam ne fa lu ñuy jëlee seeni i bourse est-ce que loolu tamit monsieur le ministre ñu ko weesu. étudiant fu mu demee di di di xaar bu sa bursam di ko laaj pendant des mois mënu ko jot. non du pendant des mois loolu itam ñu wax delloo si mbir mi weer wi dafay dee ñu war a feeku ñu toog lu mot fukki fan ak nangam feeku ñu ko waaye boo bëggee wax ñi ñuy déglu. Mhm. nga ne pendant des mois jotuñ seen bourse loolu yaa amut. ñoom ñoo koy wax d'habitude. mais xam nga yow du sa cër nit ñi di wax rek nga génn waar. Mhm. sa cër mooy nga xool lan mooy li nga xam ne mooy li am. ñu mhm. wax ko mbooloo ko dégg. weer dafay dé ñu dem ba le cinq ba le dix ba le quinze mois ba mhm. d'accord na yow weer bu dé li nga xam instruction président de la République ba koy dégg suma mois. yi diko gis muy wax lu tax bu weer dé du fay fay mois. dem da ci am expliquer ay nit ñu procédure yi nga xam ne dañ lay fay daf ci am wàllu woo xam ne gouvernement ko yore wàllu woo xam ne banque yi nga xam ne ñoom signé accord lañ ci def. Mhm. kan mooy tardel tey kii dina tardel suba gannaaw suba kali tardel tarde bi warul war nañu fexe am saafara soo xam ne dootul am bu ne premier jotee mbaa le ñu mën a fay ko mhm. comme ni fonctionnaire yi fay ko mais xam nga fonctionnaire bi processus bi yëpp état bee ko yore doomu jax at xam nga yaa ngi wax ñu ne dañu yàq ak bu yeewu ba man maa ngi fàttaliku ñun bañ fa nekkee. Mhm. daan nga ran ñetti fan pour jot sa bourse ñetti fan ngay ran pour jot sa bourse daan ngeen dem kudd bi dañuy ran ba dafa am ñoo xam ne dañu ñëw teg ay xeer seen place bu ñu def taxaw ci xeer bi nekk. Mhm. waaye mu ngi changé étudiants yëpp dañu yore seen guichet carte guichet automatique. Mhm. fa la ñuy dem jël lay tardé mooy mandatement bi loolu nag d'accord naa ak

ba euh, mu jur euh, lu bari ci ay. Euh, yàqu-yàqu yàqu-yàqu ak ay décès yoo xam ne vraiment c'est regrettable mais nag gis nañ taxawaay bu ne par rapport ak appartenance politique bu nekk waaye li nga xamante ni aussi nemmeeku nañ ko muy génnuk ministre des forces armées bu yees bi nga xamante ni bëgg na mettre sur pied à travers sa voix état du Sénégal bëgg na teg benn commission boo xamante ni maanaam day saytu. Euh, ñan ñoo waral jafe-jafe yooyu génne leen détecté leen ngir maanaam mën leen a teg ay daan tey est-ce que jàpp nga ni euh, gouvernement tamit bu sérieux monsieur le ministre war nañu toog ba mbir yi toll foofu ñuy soog a génn di wax yoo xam wax yoo xamante ni xëy na tey amaana euh, yàgg nañu wax sax wax yu ni mel ba peut-être du am sax benn poursuite boo xamante ni walla procédure boo xamante ni dinañ ko topp jusqu'au bout est-ce que tey sénégalais yi seen xel war na mën a dal par rapport ak euh, déclaration bu ni mel. man daal jaaxle yow émission yaa ngi am ci weer lay toll am na ñoo xam ne ñu ngi defi enquête da nga yaakaar ne ndaje mi ñu toll nit dee ci da xëy rek tey nga ne ndaje mi kii moo rey diw kii moo rey nañ ko jàpp mhm. yow xelal nga lu ñu toll ak yi xel. muy mbéjee ñepp toll fu ne yow gis nga sa ay fetal ñu tiir yow teg nga ci bët ñoom ñëpp diggante bu ñu xëyee ak tey ba ngeen jàpp ñëpp ñu yéen ñam te bu ñu am ci mooy taxawaay ay ci gouvernement. est ce que gouvernement lan moo tax mu yéex ko def pour yow. lan moo tax mu toog ba moment boobu ba lu bëri xew wala lan moo tax def ko tout au début bi nga xamante ni affaire yi jonn na waaye bi bi mbir yi tàngee nit ñi commencé ku nekk di dem di jaale wala nga maanaam dem nañ ba mbir yi daanaka sedd ñuy soog a xam nga xam nga. mars. début mars. 8 mhm. mars. 8 mhm. mhm. mars. le 12 mars le 15. mars, le 8 mars président de. le 8 mars président conseil des ministres. instant bi de a sonal décision yu jël mu ba ci tegu mu prononcé wu ñu def mémorandum génn ministre bi nga xam ne yow karange mhm. waxut ci turam ci turu gouvernement mais dinañ def commission indépendante mhm. boo xam ne dina saytu li nga xam ne moo fi xew bu ko saytoo ba xam ni mu xam dafa am ñaari commission d'enquête indépendante n'est pas une commission judiciaire C'est une commission qui a un caractère politique, commission indépendante. Mhm. Moi, caractère politique, mais politique. On situe responsabilité, Pas au plan judiciaire. plan judiciaire je la nga enquête politique politicien la. commission indépendante vous parlez ca liggéey de ay expert def ko mën na nekk loo xam ne commission judiciaire bi ci instruction mën nañ ci sukkandiku te du tax it mu nekk preuve absolue mais responsabilité war nañ ko situer xam fan la jógee ak lu xew responsabilité boobu ngay wax bokk na ci responsabilité état mhm. bokk na ci responsabilité service technique bokk na ci responsabilité politique yi nga xam ne ak ku nekk la nga wax ak la nga assumé loolu mënuñ ko ñàkk a def suñu réew yéex na ci gis-gis la gaaw na ci gis-gis la lan moo xam ne mooy li ñu boole ak li nga xam ne mooy li nga xam ne lañ war a ubbi ñëpp jëm fa mooy fexe ba nga xam ne bu ñu enquêté bi génne lañ enquête ku ci nekk lan la def te waroo ko def nga tuub ko parce que li fi xel gunu ndaw il faut nit ñi xam ne. aussi que est-ce jàpp nga ne liggéey bi dina yomb sax. voilà c'est ça que jàpp nga ne liggéey bi dina yomb. waaye lu yomb amul njëriñ. comme mos a gisee lu yomb la amul njëriñ lépp lu am njëriñ ci àddina. jafe-jafe ko la wax ma lenn lu am njëriñ ci àddina ak lu amal njëriñ askan wi te jafewul ca départ. Mhm. boobu gis nga wax ma dina yomb du yomb du yomb. pour enquête bi. parce que la xew xew na ba pare la xew dafa xew ba pare. lañ mën a am mooy ay documents yu bind ay images yu nekk. ak lépp lu nekk ñu xool ko càmbar ko jox ko ay expert loolu man da yomb bu doon ba ñuy xew la ñooy enquête taxaw dana yomb mais lay xew enquêteurs yi taxaw ba xew na ba pare loolu nga xam ne nag moo mën a ne. mooy ñooñu ñi nga xam ne teg pour ñu def enquête ya lañ mhm. génne ñu sukkandiku lu amul njëriñ yooyu benn ñaar mhm. nga ne gouvernement bu sérieux du def li mu def wax ma bu sérieux bu nekkoon lan lay def man xaw ma bu sérieux bu nekkoon Cheikh Sadio lan lay def bu ma ko xamee mën a tontu ci li nga xam ne gouvernement bu loolu la na mën a au moins au début. ni mbir yi xew na. waaw mu génn peut-être wax loo xamante ni dina wuteeg ministre de de des forces armées nga xamante ni tey toog na ci kanamu Sénégalais yépp monsieur le ministre. xam nga xam nga ni nga waxee. ba pare ministre xam ma yeggali ministre des forces armées Moussa. Mhm. dafa toog. mel ni kuy fayantoo xam nga tamit loolu buñ ko buñ ko buñ ko buñ ko euh, analyser day mel ni peut-être day toog di fayantoo peut-être ñoo xamante ni dañuy toog naan euh, état bi euh, ñoom ñooy responsable moom tamit mu ñëw apporter la république et cetera du coup day nekk genre question réponse alors que sénégalais yi xaaruñu woon loolu monsieur le ministre. waaw ah, sa waxal rek man mënuma waxuma na mu waxee. mais sénégalais yi am na leen lu doon xaar quand même. par rapport ak peut ay propos. sëñ Cheikh Sadibou Sénégalais yi ñu xaar xam nga lan la. Mhm. réew mi dal nekk ci jàmm. Mhm. mais mais réew mi daal nekk ci jàmm. il faut ma xel mhm. mu gàtt. réew nekk ci jàmm. ñu bëgg xam li xew xam li xew lan la. ak fu ñu ak ban saafara lañ ñu lañ ko defee defee ko nii ku nekk mën na ci am sa xalaat. yow du nga ne Sénégal yi am na ñeneen Sénégal yi xalaat ñu ñuy xalaat. yow yow lan nga jàpp yow. man li jàpp jàpp jàpp nga ne Sénégal. li ma jàpp mm-hmm. mooy li ma la wax li xew la na lu ko xewloo lu ko indi fu ñu jëm ak ban saafara lañ. am nga yaakaar ni dinañ trouver euh, maanaam dinañ aboutir à. Euh, une solution euh, am na yaakaar moo tax ma la koy wax. billaahi dama lay wax. Mm-hmm. su ma jàpputoon yaakaar du ma la ko wax. il faut une nous ayons ben ben que li ñu gis ci amadi danaka ay ndaw rek lañu gis ñu décès des trans d'âge bo xamné entre 19 20 20 ans euh, 21 ans jëmbe je pense 22 euh, ans comme ça euh, ay ndaw rek lañ ci gis tay problème bi dañuy wax né l'affaire Adjit Har Sonko a été juste un élément déclencheur mais ku ci nekk am nga woon euh, naqar boo xam ne yaa ngi ko doon dund mu bàyyeekoo feneen ci beneen domaine boo boo mën a boo mën nan nga koy nan nga koy classé euh, tey tontu bi ci njiitu réew indi ba teg ci table 350 milliards pour répondre à la question de l'employabilité des jeunes est-ce que jàpp ngeen ne mën na saafara problème bi nga xam ne dépassé nañ mën na saafara yenn ci problème yi indi loolu parce que man mënuma xalaat ne soo joxoon ndaw yi yëpp xëy ñëpp am xëy di dem mhm. mënuma gëm ni dara du fi xew politique mhm. xam nga politique dara mën nay am am ci suwaay boo xam ne ñëpp mën nañ ci teg baaraam lii la dara mën nay xew ci ay erreur dara mën naa xaw ci anam yu bëri te li ko sosal du ba ñàkk ab xëyu xale yi bokk na ci gis-gis bu néew ak taxawaay bu néew jàpp ne rek li xew ñu nga xam ni ne amuñu xëy ñu amul xëy te ñu def ko préoccupation majeure dafa méngoog li nga xam ne lii ya gouvernement démb ak tey ak barak démb ak tey waaye dafa nekk ni xëy na xale yi nga gis ci mbedd bi ñaar fukki su doon ñun ci école yi di jàng profession bala ñun ñëpp bu doon am nañ xëy comme fi mu toll xam ne dafa toll waaye comme ni nga ko waxee am na ñoo xam ne am nañ xëy te bokk nañ ci am na ñoo xam ne am nañ xëy te sooke nañ donc jàpp ngeen ni difficulté yi c'est à plusieurs niveaux te en plus du ci côté xëy mi kese parce que tey bu ñu xoolee euh, da nga bëgg mu ma ma waxaat li ma bamtuwaat li ma waxoon nee bokk na ci gàtta xel xool li xew ba pare dugg fa ne lii rek ñàkk xëy rek la. na ma loolu laa wax. d' accord léegi euh, monsieur le ministre toujours ci cadre boobu euh, tey bu ñu euh, xoolee li nga xamante ni moom moo di la question de l' immigration clandestine aussi doonoon nag mbir moo xamante ni jotoon na indi ay jafe-jafe yu bëri ba xëy na peut-être ndaw yu bëri bëggoon daal di maanaam génn dëkk bi et cetera am tamit yeneen i jafe-jafe yoo xam si lié à la pandémie ak yeneen ak yeneen yoo xam ni comme li Moussa wax rek. élément déclencheur la amaana sax euh, mbiru Ousmane Sonko bi waaye tey est-ce que jàpp ngeen ni euh, peut-être comme ni ngeen ko defee ci la question euh, de l'emploi amul tamit peut-être yeneen type de discours yoo xam ne xëy na war ngeen ko mën a dalalee xelu nit ñi quand même. discours du la xel discours day juju waaye lan dala xel la da ngeen jëf la ca teeraama ñu discours waaye bu doon discours rek kon yëngu-yëngu du am ci bu mhm. Sénégal du fenn. du discours rek moy dal xel da nga discours da nga jëf ñu gis da nga yaatal da nga am coxel lepp la bu ci bëggee japp ben rek yaakaar na mooy dalal nit ñu ñu ñeneen naxé mbay parce que bu ñe bu ma né discours bi c'est par rapport parce que euh, le président euh, de la république daf fi def récemment bon xaw na yàgg tuuti ci euh, euh, maanaam cadre élection 2019 yi ba wax mbiru emploi 100000 emplois donte sax peut-être xëy na yéen a ngi naan euh, créé na 750 et quelques je je pense 750 000 emplois et cetera mais loolu monsieur le ministre est-ce que par rapport ak ñaxtu bi nga xamante ni ndaw yi ñu ngi koy ñaxtu jafe-jafe yi nga xam ne nit ñi ñu ngi koy am par rapport ak xëy est-ce que tey jàpp nga ni loolu noonu. c'est palpable sur le terrain d'après nit ñi ni ñuy ñaxtoo. waaw xam nga ni ma lay wax rek ñun ñëpp li ñuy àtte mooy la nga xam ne dañ koy gëstu di ko gis. xam nga léegi yaa ngi da nga naan yéen ngi naan sept cent cinquante mille ngeen créé waaw xam nga nag man damay am jaaxle ñun wax nañ ñu créé waaye am na ñeneen ñu wax ñu créé lu tax bu ñu esthétique nangam mu ngi nit ñi naan statistique da ay wax bu ñu leen wax yu bon ngeen ne ñu wax nañ dëgg te nag même source yi ñoo koy génne xam nga ministère de l' emploi génn na statistique am ko BIT ci li ngay wax pandémie junne ak téeméer ak fanweer ak ñetti entreprise ñoo daal ci juróomi junne entreprise judd ci biir pandémie soo defee différence bi nga xam ne ñu judd ak ñuy dee nga xool ñi judd ëppee na ñi dee ñeenti junne ak lu topp ak lu nit nangu xool esthétique yooyu rapport bu ñu génne la ku ko yëroon dina ko ci gis mën naa nag loolu mën naay jur nag leneen ban la ay question waaye xam nga boo bëggee léegi ñooy ngeen juróomi tamit. ñooy ngeen rapport aussi nga waxtaan bi lu ko doon amal njëriñ nit wax nga indi ñoom ñoo xam ne wax nañ leneen teg fi ci fa mbala nga war ma ñoom am loo xam ne waroo daal ñu li ñu wax. non man bu boobaa waxtaan bi waxuma sax question de waroon naa ak ñàkk a xam mais comme da ngeen ni yéen teg ngeen fi loolu dama ni rek. juste par rapport ak li président Macky Sall waxoon au mm-hmm. début. yéen nee ngeen am na 750 000 emplois yu ñu créé. Mm-hmm. mais pourquoi ça se fait pas sentir sur le terrain c'est ma question. xam nga cher. Mm-hmm. yow mi emploi ba am emploi ba pare yàlla may la ko doo sentir loolu waaye guddi yi nga xam ne am nañu emploi te amuñ ko ñoom sentir nañ ko seen waajur sentir nañ ko. yow mënoo ko sentir te loolu dafa yomb a xam. man gis naa ñoo xam ne sentir nañ ko yow si nga béyee yëpp yëpp gisoo ko fenn xale boobu mu emploi xale yi nga xam ne enseignant juróom junni yi ci employé ñoom dinañ ko gis fukki junne xale yu mu nekk ASP seen famille sentir nañ ko nga xam ne mooy juróomi junne emploi yu ñu créé mu nekk ci li nga xam ne ay contrat yoo xam dañ ko enregistré. seen famille gis nañ santé nañ ko waaye boo bëgg a seet nag réew mi yëpp yëpp yëpp yëpp da def doyul parce que amul benn baromètre buy natt ne réew mi santé nañu xam nga réew mi lu ñu ñoo santé te bu ma la ko waxee léegi da nga ne seet xam nga xam nga li réew mi santé ak léegi ñu wax ma prix prix ba ma la zone euro inflation bi maanaam yokk-yokk bi motul un pour cent

mooy yokkute bi ñuy yëg ci sa kaw ak bi ñuy yëg ci sa économie mooy loolu daaw defoon nañ nangam tey jii teg ci juróom-benn mbal teg nañ ci juróom-ñaar parce que balaa ngay am crédibilité bitim réew parce que ñu ngi naan Sénégal day dem balaa ngay am crédibilité bitim réew il faut nga am croissance sa croissance bi baax nga gérer ko sinon boo demee lépp pour tabax hôpital doo ko am boo demee lépp pour taxawal yoon doo ko am sooy dégg ñu naan. Sénégal borom yu bari na kenn du la lebal soo suñ la yaakaaree wu dara ku yaakaaree la ñu lebal donc léegi boo nee réew mi santiruñ ko yaakaar ngeen santiruñ ko ñun leen rek lañ mën a am teg ko ci taw mooy ay statistiques c'est-à-dire mooy natt yi nit ñi di natt du ñu natt ñun rek mooy ñu gouvernement Sénégal di natt ak ña nekk bitim réew la ñu natt ci loolu lañ mën a teg ci table mais dañu gis ne dañu gis ne euh, mbirum employabilité des jeunes soxal na nguur gi ah parce que je pense bien que ne ñu ngi ciy waaj benn conseil présidentiel qui ki le 22 avril je crois donc euh, ngir rek toog euh, waxtaanee loolu nga xam ne mooy xëyum ndaw ñi mais dafa am ñu jàpp ne ay promesse rek la du mujj fenn parce que yàgg nañ ko dégg ba pare dañuy wax ne ñetti at yi des gëmuñu ne mun nañ ko mun nañ ko ci def euh, ñooñu lan nga leen di tontu. ñàkk xam parce que employé employabilité ndaw yi du emploi ndaw yi bokkul employabilité ndaw yi du tey jii lañ ko commencé naa la waxal lii employabilité li nga xam la mm-hmm. mooy gune goo daje ci mbedd mi ndax danga ko mën a jël dugal ko léegi ci usine muy liggéey que la muy fekk ko liggéey bu usine juddoo fii Sénégal téeméeri emploi yoo parce que usine boo fay liggéey du caagin am nga doole am nga jàng nga école rek mën nga fay liggéey usine dafay laajte man moom boo xam ne mënoo ko am boo ko jàng Sénégal boo jëlee téeméeri ndaw yu taxaw ne di génne ñu juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar na ma yàlla baal à part seen doole. Mhm. mënuñ def dara ba ko gouvernement bi attaqué depuis 2013 2014 xaaruñ conférence bi pour attaqué ci naka 3FPT bi ngay dégg nii lan doon encaissé ci li nga xam ne ci entreprise yi lañ koy jëlee. Mhm. doo ko daan dégg xamoo ko kenn xamoo ko woon fii daanaka Sénégal président dafa ne dërëm bu ñu encaissé ci entreprise pour dugal ko ci njàngaleem liggéey dañ koy jox 3FPT gouvernement daf ci daan jël ay taxes ak ñeneen yeneen hmm. lépp ñu jox ko 3FPT pour lan pour xale yi nga xam ne tey dégg naa leen dàkk de ñu ne ñoom jox nañ bon de travail dix mille xale yoo xam ne yi dem nañ leen jàngal leen liggéey ñuy liggéey tey xam nga li jafe mooy am ay emploi ba pare. Mhm. te amoo ko ko liggéey. donc la question de la formation day posé wu quand même. kay ba président Macky Sall ñu 2012 ñi nga xam ne nekkoon ci njàng pour am liggéey xëy bu ñu génnee mën a fanweeri junni ak ñaar fukk la ñoom fanweeri junni lu topp tey jii ñu toll. mu ci téeméeri junni ak ñaar fukk junni lu topp xam nga lu ko waral soo demee ci département bu ne am na département yu ci am ñaar dañ école de formation professionnelle yoo xam ne dina yore téeméeri xale bi ñaar téeméeri xale suma département am na ci ñaar département boo dugg Sénégal am na benn mhm. centre de formation professionnelle professionnelle laa waxuma technique boo jëlee 47 département 45 département puis ñaari département yoo xam ne am na ñaar muy 47 mooy formation bi nga xam ne day fekk xale yi fi ñu dëkk formé avant président neew fi amutoon fi ay centre de formation technique moo fi amoon et professionnelle donc formation bi war nañ ko mën a gën a yaatal ci pàcc mbay mi téeméeri junni ak ñaar fukki junni mhm. ñu ngi foon mhm. mbay mi mhm. benn école moo ko fa daan def agronome Bambey INDR Thiès ñaar ak centre horticole bu Cambérène jàng université yi lu jeex tey am département agricole am na juróom-ñaari lycée professionnel yoo xam ne ñu ngi tabax tey ñeent fukki centre ak juróom-ñaar yoo xam ne ngi liggéey de formation professionnelle loolu mo indi njuróo ci fanweeri junni ak ñaar da jëm tey ci téeméeri junni ak ñaar fukk ak lu topp nekk de formation professionnelle loolu nous waral tey 3FPT aurait 39 milliards yoo xam ne gouvernement entreprise ñoo ko dajale des ko fa ñu joxe ay bons de formation donc boo nee employabilité xale yi. Mmh. ñu ci def conférence. Mmh. njuumte dafa am foofu. loolu dafa nekk soxal préoccupation gouvernement booba tey ñëw nekk ci di ci liggéey. Mmh. du lu yomb. lu jafe ko. monsieur le ministre euh, musa bu fekkee da am mhm. beneen. non non am totalité voilà mhm. euh, ñu jàll ci yeneen euh, ponk. xam naa ne mhm. sax waxtu wi mu ngi ñuy. <laughs> ndax dañoo xaw a guddee commencé lii di waxtaan wi. waaye monsieur le ministre dañuy ñëw ci lu mel ni yenn question politique yi nga xamante ni xëy na tey bon bi nga jógee fale ci. Euh, peut-être ci métier journaliste xëy na sax journaliste de sang nga ba léegi waaye xëy na pratiqué woo jamono yi ñu toll nii yaa ngi ci politique bi impliqué wu nga ci carrément. Mhm. mais tey dañu gis benn configuration bu bees boo xamante ni tey euh, kenn ci euh, kujje gi maanaam xëy na moo ci gën a fës bu fekkee sax peut-être xëy na bañ naa wax ñu jiital ko ndax amaana ñu bari xëy na jiitaluñ ko waaye gën na ci fës. ba peut-être li nga xamanteni jall na fi fan yu ñu wessu muy mbiru aji sar bi gën nako propulser muy Ousmane Sonko tay defena euh yeen ñi nga xamanteni yeen yeena nek ci mouvance présidentielle bi war na leen mëna euh tiital nak ndax envergure bi mu am ni defena euh amul kenn ci ku jégi ko xamanteni am nako ko politique bo ci négé di tit booy wax bokk nga dem sa politique bo ci négé cal nag yaangi tit jarul nga koy def sa métier bii bu dee yaa ngi ci di tiit yi liggéey baal nga dem defi leneen. mais on parle de Ousmane Sonko quand koo xamante ni xëy na tey peut-être ñu bëri jàpp nañ Sonko xam nga. xam nga koo xam ne tey. li ma la mhm. tontu. bi nga xam ne dama la libre ak man wolof la ci culture. Mhm. su ma yeetu ko loolu son papa nekk Malangue. Mhm. waaye ci culture culture wolof la wax la mu danga caa am déggin. ñun li nga wax ne tiit nañ bu dee muy Ousmane Sonko muy keneen moo ñu tiital jël fi mu nekk mérité ko mérité ko loolu mooy suma tontu ci loolu. d' accord kon yéen actuellement euh, peut être euh, euh, rassemble kii yi nga xamante ni ñu ngi koy mëne fan yi yëpp daje yeeg euh, yenn coal coal yenn ndajeb coalition benn Bokk Yaakaar ak. Mhm. dem fu nekk nga nga dugg fa di di di di def def ni maanaam mel ni daal da nga da nga da nga da nga da nga jàpp ni soo deful ndànk rek sa yenn militant yi nga xamante ni jotoon nga leen am ci yenn localité yow dafa mel ni dama woo soo kon dem mais xam naa yaa ngi waaj. li nga wax peut être xoolaat. li wax du loolu. Mhm. maanaam te loo sa environnement analyser ko ci lucidité ak ñaar parce que boo tiitee doo am lucidité mm-hmm. boo tiitee doo xam jëmuwaay waaye nag kuy def politique boo taxawee xool sa environnement la nga xam ne moo mën a nekk gàllankoor ci yow war nga koy xam nga liggéey ci kon jàpp nga ni ñoom am nañ ay faiblesse yu bari jamono yii. non xam nga am ay faiblesse yu bari ak xam loo xam ni mën na lay indil faiblesse bu benn. Ousmane Sonko politicien la dugg na ci làng yi am na ko ci yàlla may. waaw ah, loolu ngeen di ragal loolu ngeen di ragal mu jël loolu ngeen di ragal moo tax ngeen teel bañ a may benn marche de benn bés. son benn journaliste daf doon interview Ablaye mhm. bi bi nga bi nga la ko posé. mu nekk nii de Mamadou Diop ragal nga Mamadou Diop de tiit ngeen ci. mu ne ko ah boo amoon xel tuuti doo wax loolu man may politique lu mot ñaar fukki at daanaka ma yegg si fi ma yegg nga yaakaar ne diw war na ma mën a ragal loo kon li ma doon def am ama tontoom laa la jox rek waaye am naa xel boo xam ne lii lépp mhm. mën indi ci man benn jafe-jafe daan la jël fa la toll laa lay tollale mesure la xam lan la ma jéem a ut fu may bopp pour dépasser la doo ma jot loolu rek loolu mooy Macky Sall jamono fi mu toll nii maanaam Ousmane Sonko tollu ko fii ci politique. franchement c'est question bi daal man nekkuma ci loolu quoi franchement quoi. xam nga que s'il vous plaît da nga may laaj question yoo xam ne. Macky Sall am na njëriñ. parce que di tëkkale Macky Sall ak Ousmane loolu. non ma fi li ma la tontu. adversaire politique la. Mhm. jàpp ko comme adversaire politique ben adversaire politique du tout. monsieur le ministre ci ay élection lañ jëm euh, euh, muy les élections locales yi nga xamné donc ça se profile à l'horizon té ba léegi ñàkk déggoo dañ ko ko ci langue politique bi ñi ngi dialogué mais mbir yi dafa dafa am blocage. Mhm. Euh, ci énième report bi nga xamné da daanaka report bi sax melni na acteurs yi and nañ ci. Mhm. mais date bi nga xamné mom lañu la ñu ngir amal ci jongante yi moo posé problème ba fi ñu nekk tey ban taxaw seetlu nga ci def en tant que déjà acteur politique. Euh, yow sa wax nga ko yow sa bopp. ñu nga report bi daanaka jëpp d'accord nañ ci te ay date lañ waroo ñu ne nañ 31 décembre. Mm-hmm. loi bi nee na du weesu 31 décembre. su ñuy waxtaan du weesu 31 décembre du weesu 31 janvier. ñu ne 31 décembre lañ mën a ne. xëy waxtaan bi mën naa jur ñu def ko 23 décembre waxuma ko de dama ne xëy na comme ñu ne ñu weesu loi bi du weesu 31 janvier. am nañ a am xëy na mën na fa ñàkk luy problème bi ba mënuñu ko def da au courant de l' année en deux mille vingt ans. lan mooy problème bi ba ñu war ko def le 31 décembre même question la. man gisuma benn problème loo xam ne waroon nañ ko def yaa trois ans mais homme politique ñoo décidé ci ñoom ñaar dañ koy pousse boo leen gisee nag garaay leen parce que man xaw ma. ci seen man dama gis dama gis xëccoo ci date man dama gis. ba jàpp nañ ne njiitu réew dama lay wax man ma xalaat li ma xalaat man dama xalaat ci jàpp ne mënoon nañ ko def daaw ba waxtu jotee. mooy suma position. mais ba wax fu jotee. configuration pour man report jarutoon ko. kon yow àndoo ci euh, tripatouillage calendrier républicain bi. xam nga loolu wax la du wax ju rafet ay kilifa yu toog ñoom ñëpp. Mm-hmm. tripatouillage ñoom ñëpp a toog d' accord nga ne dañ koy tripatouiller non wax que monsieur le ministre. non c' est la c' est la troisième ñëpp a dajaloo reporté ko bu waxee tubaab du tripatouillage wax ju rafetul dañu waxante dëgg rek. ñu ko nar a duppe kon. report. report. pour pour euh, xam nga suñu par suñu patrouillage alal nit bu woon kenn moo toog ne nañ ko reporté mais ñun ñëpp a toog dajaloon d' accord nañ ci ñu reporté ko man wax naa la suma position bu doon man suma sago booba lañ koy def ba mu jotee ñu def ko. Mhm. d' accord boo doon a xam dina xalaat loolu laa xalaat. Mhm. maintenant du man mooy dogal ñi xam ne ñoo am kaddu di waxtaan waxtaan nañ ba reporté ko. Mhm. reporté nañ ko. d'accord accord monsieur le ministre avant dernière question ci ben ben question ci euh, mbiru bonne gouvernance euh, yoron nga ministère boobu. non loolu moom ministre de la bonne promotion de la bonne gouvernance voilà promotion de la promotion c'est important. Mhm. voilà promotion de la bonne gouvernance mhm. nga nekkoon fa di fa liguey euh amna lo xamanteni ni nemmeeku nañ ko xëy na sax lu tollu ci ak ñaar téeméer ak lu teg. ci ay demande de de de marche et cetera yoo xamante ni euh, sous ministère euh, sous sous le ministre Aly Ngouille Ndiaye xëy na amoon na fi ñu ñu ñu ñu gàntal ci 17 c'est ça donc xëy na am na lu bëri loo xamante ni progrès la amaana mais dañu nemmeeku jamono yi mu am loo Senegal ni euh, sénégalais yi déploré nañ ko muy japp japp tejja ak Guy japp Assane Diouf am am am am diw indil et cetera donc lolu suko suko nit ñi gisee tamit monsieur le ministre est ce que du du du du am lu mu lu mu susciter ci xel nit ñi tamit par rapport ak li ngeen di wax naan euh, nit ñi aussi voilà liberté d'expression amna et cetera demande de marche amna et cetera est ce que. ñu ñu wax kan la ci kan waxuma ci suñu nopp bop la dégg. Hmm. mu ne man lu ma saaga ndey sabun ma parce que man saaga kuy saaga la saaga la. kan si yow kii saaga. kii saaga ndey nii. Mhm. di saaga ndey ay kilifa waxuma sa ay kilifa kooku bu ñu ko jàppee warul xam nga ki nga tudd ki ne man saaga kan la di saaga ndey nit ñi den saaga bàyyi di wuñu seen sutura nu mu ko neexee kooku daal yow loolu mooy liberté de presse loolu mooy liberté d'expression. bu la neexee daal. xaaral rek bu la neexee daal mu téye rajo bi ak télé bi internet bi di saaga ndey ku ko neex yooyu ànd nga ci. ko cautionné nga wax mooy cautionné ko ci ñu jàpp. en ma xam ko. voilà voilà da nga ko lim ci ñu jàpp. non en fait en fait moom na dama ko ci laaxaale mais. non laaxaale ko da nga ko tudd. da nga ko tudd dama lay laaj rek. nga d'accord nga. muy war na. buñ ko jàppee saaga kenn du ko cautionné xam naa sax maa ngi koy wax bu ngeen ko bindee dina ma saaga ndey bu xol sax ku mel ni Guy Marius Sagna wala Abass Fall wala koo xamante ni tey euh, mel na ni euh, Birame Souleye euh, Diop ñu mel noonu tey par exemple li leen li li leen jota yow jàpp nañ demoo lu tax ñu ñoom lan lañ def ñaa leen jàpp xam ñu def nañ leen ko wax wax nañ leen ko sax ñoom lañ def yow Sénégal koo fa gis mu jàpp ko te ci gas la deful dara am na ñoo xam ne dañu jàpp ne. yéen yéen a jàpp ne a jàpp ne xam nga xam nga jàpp ne waaw mais xam nga xam nga jàpp naa leen nangam la ak loolu mooy am du benn dafa yomb ñu jàpp ne tëj kaso nga ne détenu politique la xanaa kuy def politique amoo doo def déy li nga wax mooy loolu kuy def téléphone. Mhm. man bu ñu suma téléphone partagé ko du wax loolu. google suma kër naan mu ngi nii dem leen jàpp ko dem leen toj demee dem ko bu ñu la ko defoon doo ko wax ñàkk la koy dem mbaa ñu def ko sa mbokk moo tax nga toog di ko wax jërëjëf Moussa daanaka waxtu wi dab nañu xanaa ñu jeexalee benn benn benn benn question boo xamante ni naan dañ jàpp ñu leen ci kaso defuñ dara monsieur le ministre bokk leen ci ñun jot yéen a ko wax parce que mu wax eh. bu baax xam na mm-hmm. xam na mu wax donc mm-hmm. jeexalee euh, benn question relative à euh, à ce qu'on appelle euh, maanaam doxalinu presse ci réew mi su ma nee doxalinu presse c'est par rapport peut-être à la liberté d'expression à la mm-hmm. liberté de voilà donc euh, yow nekkoon nga koo xamante ni yaa ngi woon fële ca sud groupe sud communication am na lu bëri loo xamante ni def nga ko fa collaborateur yu bëri yoo xamante ni liggéey nga ak ñoom donc tey li nga xamante ni jàngan nga ko ci réseau sociaux yi ak fépp foo xamante ni doon na ay plateforme yoo xamante ni ñu fay néewal presse néewal doole presse euh, en tant que journaliste lan ban effet la def ci yow. xam nga damay yëgal leen. su ma bàcc ko. ba journaliste yi jógee taxaw ne dañuy dañuy dindi dindi de presse dama ne bokkuma ci ñu ko d'accord journaliste du la neex wax lu neex def beneen seet yàq-yàq yi journaliste di yàq ak néew a doole yi ñu bëgg a néew a doole journaliste ñaar ñooy yem képp amul wuute xam nga li nga laaj léegi mooy journaliste yi ñu néewalee doole képp fépp fu mun a fexe journaliste bi ko néewal doole fépp fu ma toogee mu ci biir gouvernement. ku teg dara journaliste ma toog waaye nag na ma exiger ñu respecter journaliste yi noonu laa bëgg journaliste yi respecter seen métier waaw ma respecter nit ñi respecter seen métier foog nga respecter seen métier la di génn di wax loo xam ne vérifier ko xamoo ko mba di répéter li nga xam ne li nga xam ne xamul ci dara ko wax nga koy répéter loolu war métier journaliste du loolu na nga may exiger ñu respecter leen teg leen place ba ñu leen war a teg jox leen maqama ak daraja yi ngeen war ngeen yelloo ko nag noonu ngeen war a fexe nag seen nit yi ngeen jox ko cëram respecté ko donc da nga jàpp ni cër bi ñu ko war a jox dafa des loolu moo tax xëy na sax ñuy subir des na na desul cër bi nga non non déedéet déedéet xalaat nga journaliste la journaliste la woon ni ñu defee pratique journaliste léegi mm-hmm. yaakaar nga ne amul benn sikk yow yaakaar nga loolu xam nga yaakaaroo kon nag sa tekk tekkaaral ji. Mhm. yaa ngi xalaat comme journaliste nga xam nga ndax respecté nañu dégg yi du ay journaliste. ñooñu moom waxuma ne. ñooñu mhm. moom lu ci bëri lu neex la ñuy def. kon kon kon su nekk journaliste la boppam yaa ngi wax la boo gis ci àddina dafa am loo xam ne dafa ànd ak moom. Mhm. boo bëggee ñu jox la sa cër. da ngay joxaati cër. ku bëgg am cër ci àddina da ngay joxaati cër. Mm-hmm. mënuñu laaj cër ba pare ci ci métier bi ngay def joxoo ci cër waxuma ñëpp nag. Mm-hmm. dama koy wax waxuma ñëpp. Mm-hmm. waaye li xew xew na wax ak yegg foo xam ne fii jar na waxtaanee du ma rek ma ko wax na. kuréel wax na ko syndicat wax nañ ko ñëpp wax nañ ko. mu ne nag bugg nañ métier bi nekk la waaj wax mooy métier bi gën a rafet ñu am ndam ci àddina bu dee ñu ko bëgg a il faut ñun ñu koy def ak ña koy def tey jox ko moom li nga xam ne mooy wàccuwaay est-ce que kon da nga jàpp ne euh, tey parce que gis nañ fii ci période émeute yi ay këru tas euh, taskatu xabaar yu fi tëj mm-hmm. ah, lu ci mel ni donc Sen TV lu ci mel ni yeneen confrère mm-hmm. euh, Walf yu ñu fi tëj seen raat tëj seen ay këru liggéeyukaay ci ak diir Euh, loolu nan nga ko jàngatee. am Sénégal moom moom liggéey boobu di ko def. xam nga man li may xalaat du mi am solo man boo ma nekkoon du ma leen man su ma bopp du ma leen tëj ma defee parce que dafa am yoo xam ne yi képp koo xam ne kii yaa yore rajo war a jaar boo mhm. da ku nekk rek am na droit ubbi sa rajo sa télévision di wax loo neex di def neex. loolu lu métier bi bu dee loo tax du jug ñeneen yi ñuy toog bokkul ci métier mais agression yi ñuy def ci journaliste yi loo ciy wax. xam nga man du journaliste laa wax ci àddina tooñ naa ko rawatina métier ba nga xam ne moom laa def wax ci agression journaliste yi mais lu garaaw la société buy dellu gannaaw nga société laa wax buy dellu gannaaw nga gis ay nit di jóg parce que journaliste yi ñu wax nekk la ñu doon doon loolu réew moo ko gis soo jàngatee kanam. Mm-hmm. ña ko soke jëmale réew fu baax bala ñu koy def amuñ ci réew bi naw na kii cofe mm-hmm. muy journaliste bi muy keneen journaliste yi xam nga boo leen agressé am nañ ko leen yuuxul jigéen ji xëy di dem marché gàddu bagaasam nga ñëw fekk ko fa mu fekk nga ne ko tafit dóor bu la neexee nga jam ko paaka jël sa ma jël sa téléphone dem musiba la benn société mënta nangu loolu kuy saaga nga koy applaudir di saaga ndey di ñàkkee kersa nit mu xëy ñu naan diw héros gis ñu def leen ci photo le héros de la nation ci photo ay journal héros de la nation ku rey nit koo xam ne ki yaa ngi saaga nit ñi guddi foo leen romb ñu ci télé ñu jox leen ñu wax donc da nga jàpp ni yow régulation bi waroon am ci média yi euh, dafa des. xam nga dafa am autorégulation. Hmm. média balaa ñu koy réguler. Hmm. régulation xam nga kañ la commencé am. mu ngi commencé ci ñoom daal. dans les hmm. la ñu commencé régulation. amutoon fi autorégulation moo amoon da ngay seet ni lii jëf naa ko du jëf ju rafet. ci man nii koy def. ku jëf ci rafet ku société bu ko def nga réglé sa bopp. d'accord mhm. daanaka li ñu amoon ci waxtu jeex na. ñu tàggatoo ak euh, monsieur le ministre monsieur le ministre balaa ñuy tàggatoo sax euh, soo ko dafa mel ni yaa ngi waajal sa bopp de élection yi yow. pare nga pour mobilisation yi xam nga suma diggante Sokone du rapport ay politique. Mhm. beneen rapport xam nga ñi may seet ci politique bi suma ma xamuloon mhm. suma diggante Sokone lan la. seetlu nga ne bokk naa ci journaliste yi Sénégal fépp fu mu waxee tudd suma dëkk ba bëriwul bi de. dëgg la remarqué naa loolu. loolu dafa am ko wënd. mooy suma diggante ak suma dëkk. du affaire politique ma politique ma ñàkk dara rawul nag mbégte ak ji dem fa nga juddoo ñu def la maire bu dee loolu ngay laajte. loolu leer maa ngi ci tey. Mhm. maa ngi ci woon démb dara démb gannaaw suba naa ci nekk bu soobee yàlla lay vraiment di la remercier ci disponibilité bi vraiment euh, xëy na yéex nañoo commencé euh, lii di euh, waxtaan wi waaye tamit encore une fois rek dañ dañ dañ lay remercier à travers ma voix mhm. toute l'équipe de Dakar Actu ci kaw ba ci suuf ñëpp a lay jaajëfal par rapport ak disponibilité bi nga ñëw jagleel vraiment ñu lay bàyyi nga tàggatoo mbokk internet yi. maa ngi gërëm di sant mhm. ñoo bi ngeen ñëw mënoon ngeen dem feneen maa mhm. ñëw ma leen ciy sant leen gërëm. di am yaqin ak yaakaar ne baat bi dafa de mhm. kurfaan la am yaqin ne xëy na am na lu ma wax lu am njëriñ mhm. ñaan yàlla yàlla defal ñu jàmm wér ci weeru koor yi amiin man man bu ñu woowee ba war gi jeex jàmm jërëjëf

wax ne dañ leen di jox dig daje rek ba semaine prochaine incha allah. jërëjëf musa euh, monsieur le ministre encore une fois ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. di jaajëfal euh, également euh, sunu mbokk internet yi nga xamante ni ñu ngi ñu doon seetaan. di remercier également techniciens yi nga xamante ni jàpp nañ ci liggéey bi di leen jox dig daje sunu mbokk internet yi ci seen beneen numéro wu l'entretien fii ay bés jërë ngeen jëf.